asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki tijaan yi ci seen mbokk la Mouhamed Bamba Sall ci ndigalal njiital mboolo mi muy sëriñ Mouhamed Cissé ñooy am mbégte di yëgal mbokki tijaan yëpp fu ñu mën a tijaanoo di leen xamal ne fas nañ yéene màggal guddi katmiya bi nga xam ne Cheikh Ahmad Tidiane ci la joxe yotee maqaama mu màgg mi nga xam ne kat mi moom lañ nëbb ci la ñu indilee xewal gu màgg gi muy tarixatu Tidiane mi ñu ngi ko war màggal incha allahu euh, àllarba tolloo ak fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre bi ñu nekk ca zaawiya maam Alaaji Malik buñ julee timis ba julli gee buñ jullee gee ba pare lañu fas yéene tàmbali waxtaan wi incha allah duñ fa yàgg nag dañ ko fas yéene tàmbali ren rek baaxental ko ko incha allah dinañ ko commencé buñ jullee gee euh, ba minuit twelve o'clock incha allah lañ fas yéene tasaaroo duñ ko yàggal ba ñëpp teewee ko guddi gu barke la fas ki fas yéen def waxtaan wi nag mooy euh, sëriñ Mouhamad euh, Mountakha Sakho ak euh, ak yenn borom xam-xam yoo xam ne nii dinañ fa teew incha allah mel ni Souley Ndiaye ay yeneen gan yoo xam ne nii ñu ngi fi te xam tarixa bi lool waaw baax na teewee ko pour ku nekk la nga am war nga xam lan la pour nga mën cee sant yàlla pour yàlla dolli la. waaw tarixa tijaan nag ak Cheikh Naama Tijaan garaatam bi nga xam ne moom la am fa yàlla moom la fas yéene waxtaanee foofu ku nekk dégg ko xam li nga am lan la nga mën cee sant yàlla pour yàlla yokk la kon yëgle baa ngoogu incha allah fas na yéene amal ko ma baamtu ko àllarba bi jëm tollook fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre lu ko dalee bu julee gee min wi incha allahu taala ñu ngi mbokki julli yëpp mbokki taalibe yëpp ñu jëm ko teewe waaw mbokki taalibe yi ndax tijaan ndaxte dañ fay wax moom ku yàlla dimbale woon nga gëm Seex na am tijan xëy na doo ko mën a dégg kon mbir maa ngoogu ci ngi leen ciy woo loolu moo doon yëgle bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh